ma bari ma dégg ñu bari ñu ko commenté ba ci Taïb Socé am na benn vidéo bu ma gis mu koy commenté. Mm-hmm. par combat ak Ama Baldé bi. Mm-hmm. su ma su ma wóorul foog naa gisoo ko sax parce que dagg naa ko ba la ko. message yi mooy bari dañuy comprendre loolu noonu. mais ci koor gi lañuy waxtaan ak moom Boucar. boo amoon question nga ubbi waxtaan bi. Mm-hmm. ñu dugg ci waxtaan bi waxtaan ak moom ci weeru koor gi ana tànda. waaw Lamine dañ koy nuyuwaat rek di ko ziar waat waxtaan ak moom ci weeru koor bi. comme ni mu ko waxee rek parce que avant dara tey ay doomi aadama lañ. aussi mhm. yàlla bu defee tey aussi nga juddu juddu si famille jullit aussi euh, loolu da nga koy mettre en avant maanaam moo war a jiitu te moo war a mujj ndaw ni nga ko waxee rek am na aaya bu mu joxe xam na loolu yëpp yaakaar naa aussi mooy maanaam di bàyyilu nit ñi xel rek même boo nekkee mbër aussi tey doomu aadama nga nekk doomu jullit tey am na yu bëri yoo xamante ni tey am na loolu sa diine may na loolu sa diine mayul mhm. waaye tey en que euh, sportif tey en tant que mbër tey aussi nañ xam maanaam tey ni muy dundee koor gi muy séance d'entraînement yi muy ci famille bi parce que yaakaar naa ne weeru koor liñ ci wax muy ci côté ngëneel dafa bëri aussi liñ ci wax aussi muy ay charte tey yow war a tegu parce que nee sa yaram dafa war a woor say bët woor sa làmmiñ woor parce yooyu tey mu ngi si mu ngi si dox mu ngi si wax ak famille bi mu nañ leen si soññ mu ngi si jeetaay ak ñoom loolu yëpp aussi vraiment bëgg nañ bëgg nañ ko xam. Mm-hmm. Mm-hmm. ah waaw Bougar. Mm-hmm. d'abord ñu ngi kontaan bu baax comme ni nga ko waxee rek. Mm-hmm. Oulé Pesso. Mm-hmm. ay jurit lañ. Mm-hmm. malgré ñoo ngi ci làmp ñoom ci yéen ak yëpp. mais tamit du tax ak boo mën a nekk. nga sàgganee sa diine. waxtaan naa loolu moom dañ ci gën a soññ ñëpp rek. parce que ñuy wax chaque fois wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun ñun nit ak jinne yàlla daf ñu wàccee pour ñu jaamu ko nag bu jamono neex nag dañu fàtte ne ay jaamu yàlla lañ ndax mm-hmm. nañuy delluwaat suñu xew si yàlla bu baax a baax a baax mm-hmm. rawatina ci weeru koor gi ñu nekk mm-hmm. weeru koor moom moom yàlla da ko wàccee ci ñun mu nekk ngëneel pour defar nit ñi xanaa ko bëggul defaru dañ koy wax weeru promotion la maanaam nit ak noo mel ci weeru koor mën nga fi jaaree baax boo ah. baaxoon mën nga fi jaaree gën a baax ji def safar sax defe naa ñu bari. Mhm. ñu sépp book dañ koy aj mhm. te ku ci yàlla dimbali nga aj ba koor gi jeex yàlla mën na dimbali mu continuer dëgg la ba tax na daal yàlla da ko wàcc ci ñun pour dagal na ci koor mhm. alxuraan it wàcc ci bëgg ñu ci defar ndax na promotion la daal képp ku jur ku ne war nga ji profité sa kéem lay kàttan. comme li nga wax rek. koor moom du du du du xiifal rek. xiifal rek daal mu mm-hmm. ko waaw luy woor ci jëmm yi muy bët yi. làmmiñ bu lu nekk. mu mm-hmm. ne ko war na woor ba yëg ko. dama mm-hmm. daal damay soññu nit ñi rek sama mbokk yi. ah ñu gën a góor góorgóorlu pour defaroo ci weeru promotion bi. yal nañ ci yàlla defar. nangul ñu suñu jaamu yàlla yëpp. te suñu yore turé ci mu jéggal ñu ko incha allah. may ñu fekkewaat at yi ñëw incha allah. njaboot gi ak weeru koor bi. waaw moom nga njaboot gi moom lu ñuy wax. yàlla moom bu defee ah, góor même jigéen. da ko sàmm la la def. ba tax na njaboot gi moom dañ leen war a teg ci yoon. comme chaque jour ah. weeru koor gi moom la ci raw dañ leen di gën a sonn ci lépp. Mhm. wax dëgg yàlla alhamdulilah quoi yàlla daal dimbali na ma mën ak njaboot gi soxna yi ñoo ngi def suñu kem kàttan pour jàppalante ah, ci diine comme li ñu wax rek say jaamu yàlla la. Mhm. te mottalante la it. dëgg <laughs> tax na xam nga moom it ñu baax ñu ko déggal vraiment. Mhm. ñoo ngi góorgóorlu seen kéem kàttan ci li ñu yàlla déggal. bañ koy jottali ñu ànd di ko def. waaw loolu dañ la quoi njaboot xam nga yàlla tàggat leen ba ñu déggal la. Mhm. sant yàlla bu baax dama leen ciy mhm. samay goro yëpp. Mhm. waaw yaakaar naa ne laaj boobu moom dina am solo pour Moodu parce que yaakaar naa ne. Moodu rapport ak koor gi. ak njaboot gi. man damay laaj Moodu sax ci. côté diine parce que ñun ñëpp ay jullit lañu mais jullit ba pare di pratiquer loolu yaakaar naa mooy li ñu gën a soxla te dañu seet lu benn muudu boo xam ne macha allah mu ngi def sport mu ngi def lépp li mu war a def mu gis nañ ne seetlu nañ ne mu ngi pratiquer diine pratiquer boo xam ne ni bu ama am solo la ba boo ñëwee sa biir kër sax da ngay sentir loolu muudu diggante bi mu duggee ci làmba ak diggante bi mu toll tey maanaam ci njàngale bi ñu ko gën a yokk ñan ñoo la gën a tàggat ci côté diine bi ñan ñoo la gën a pousse ci côté diine bi ba tey Modou amee taxawaay bu fermeté bu bu leer bi nga xam ne ñu baree baree bari dañ la ci gën a naw quoi guddi toll nii. eh Babacar alhamdulilah loolu dañuy sant yàlla d'abord parce que xam nga yàlla am na ay nit ñi nga xam ni amaan na jàng nañ ba ñuy kayit yi te yàlla mooy leen wërsëgu ñu joxe. seen jaamu yàlla bu mat gorom <laughs> nag dañuy nekk ndaw xam nga suñu papa te ñu ci tàggat wax dëgg yàlla ñu ko jàng alxuraan suñu papa dañ nañ ci lu nekk mm. des fois la doon wàcc liggéey ñëw xool daara parce que fi ñu njëkk jàngi foofu parce que sel woon kër mm-hmm. ñëw xool ndax jàng si nañ mm-hmm. xam ba tax na moom daal yar nañu ci diine bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. nag ñu màggee moom lu dul góor góorgóorlu rek jéem a tegu ci lancé boobu mais ku moo wax rek bu lépp weesoo tamit ndimbalu suñu borom la te amaana xam nga tey ay at ci ginnaaw ci ginnaaw ci ginnaaw amaana sax am na ni nga xam ni yaa ngi doon def. mais am na ni nga xam ni daal desoon na daal. tey ñu ngi góor comme ni ma la wax suñu kéem kàttan ba suñu waajur lim ñu bàyyil mu yar ñu ci diine ñu ci jéem a nekk jéem ci tàggat suñu njaboot ci la maximum. waaw ndax ñoom dañ ko soxla gis na ñu jiitu suñu waajur yi def si ñun lu ñu def. Mhm. ba jiitu soxla nañ njaboot ki ñu yar ci diine. Mhm. mu leen di ñaanal. Mhm. waaw parce dañuy wax ëllëg yow wax am nit ku dugg bàmmeel ñett ko fay jëriñ. njëkk bi bokk na ci doom bu mu yar ci diine mu koy ñaanal. ñaan yooyu day yegg si. waaw yi nga def te yàlla tax. yi nga def yooyu yëpp dafay fekk na ñu ko daal boo nekkee jullit. li may wax sax ku sa waajur sax yarul yow nga màgg nekk mu kalaf hmm. war nga dem gëstu dina parce que boo hmm. nekkee mu kalaf bu dee góor nga li war sa papa moom moo la war hmm. bu dee jigéen nga li war sa moom moo tey boo jàngul woon war nga dem xool lan moo ñoŋal sa diine nga nekk ci muy nga jàng ba xam li nga war a jaamu yàlla rek nga nekk ci parce mooy li ma wax rek ca aaya bu njëkk wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun yàlla daf ñu wàccee ak jinne pour ñu jaamu ko te jaamu yàlla moom wax dëgg yàlla. dama xooli téeram bi pour man. comme téeram bi ci la dëxëñ lépp moom. faaw a jàngee tax na te du wees ah. du wees wees moom. kon kon ngi continuer gëstuwaat xam di jàngat xam-xam. oui oui comme li ma la wax suñu papa tàggatoon nañ ci. waaw des xam nga toogoon nga benn instant affaire yi xam nga xaw a sàgg. xawoon ko sori alhamdulilah ba yàlla dimbaliwaat la ba nga tegwaat ci yoon bi. di ci góorgóorlu sa kem kàttan daal yàlla jubal ñu ñëpp. ndax mais tamit foofu ba tey Moodu euh, ndax Moodu ni muy jaxasool dafay jaxasoog ñoo xam ne nii ay boroomi xam-xam lañ ci wàllu diine ñoo xam ne ni dañuy gën a yokk Moodu xam-xam ak yu mel ni ki noonu parce que tamit ak lu mën a xew comme li nga wax yar nañ la si tàggat nañ la mais bi nga màggee nekk mu kaalaf ne ci benn mbir ba yàlla dimbali la nga am ci sig-sig lépp macha allah mais dañu gis ne danga gën a dund mbir mi moo tax ma jàpp ni ma ma laaj ndax Modou ndax day jaxasoo ay doomi aadama yoo xam ne ci wàllum diine lislaam dañuy jëfandikoo diine jëfandikoo goo xam ne wàll nañ Modou ba si yëpp loo xam ne ni ci diine tey mënatu koo boole ak lenn man ku ma xam hmm. xam ma bu baax hmm. dina xam ni man ko bëgg xam-xam laa hmm. ci fan bi yëpp nag te su ma toogoon ak médecin bi naa ko laaj ba ma foog ne ma man enquêteur laa a journaliste parce que comme li wax boo nekkee ci àdduna di dund maanaam war nga xam war nga xam la maximum daal xam ah nga li nga wax xam-xamu ñu ngi côtoyé ay kilifa yu mag a mag a yi nga xam ne xam na am diine alhamdulilah doy nañ ci bu baax a baax ñu leen côtoyé ñu lu ñu réer si suñu diine dañ leen di woo laaj leen. xam nga comme li xam nga yéen a ngi bëgg def benn oustaz mel ni kuy conférence man conférence ba nga gis yenn gaa yi xam nga bëgg xam dara seen kii bu ñu ma ko laajee mhm. damay wootee laaj mhm. su ma laajee après ma wax leen yow lii yow lii. Mhm. ba tax na buy noonu daal. <laughs> mais loolu nan la la dikkee dëgg la comme ni nga ko waxee nga ni sa papa à doon na la. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que tey mën naa ne lu bari day ubbeeku sa kanam te bu la yàlla dimbaliwul rek ma ko mën nga jël ñàll bi daal yoonu tegg bi mën ngaa jaar ci tegg waaw xam nga ba tax na ku ci am dimbal suñ boroom ba yàlla xiir la ci diine gi loolu sant yàlla suñ borom la damay wax rek du njàmbaar ah dimbal suñ borom kese la ñaan yàlla rek mu gën ñu dëgëral ñu ñëpp dëgëral mboolem jullit ah yàlla ah. mën na ko yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def gën ñu dëgëral ñun ñëpp rek ah, ah, mais tamit mu mel ni ba kër gi boo si ñëwee mm-hmm. ñuy profité di nuyu sa ay soxna di leen ñaanal mm-hmm. jàmm ak sa wujju bu jigéen bi fi nekk yàlla gudd fan mais gis nañ ne tamit loolu dañ dafa dañ koy gis loolu jeexintal boobu ci sa ak njabootam rawatina sa ay soxna ak sax ñi ànd ak yow mm-hmm. waaw loolu sant yàlla comme li may wax rek tey ñun fu ñu yàlla féetale amuñu droit yu bari ñu nekk ci wala ñu koy def tey am na foo xam ne bu la bu la fa yàlla tegee nit ñu bari dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy roy ci yow. roy ci bu la yàlla xiiree ci saban mm-hmm. sa entourage bu la ñu la jege ñëpp. Mm-hmm. maanaam mun nañ seey ci loolu. Mm-hmm. Eh, am na loo xam ne boo ko yàlla dimbalee ba teg la ci. ci yoonu siraatal sa njaboot am fi nga teg. ñoom it fi nga nekk rek. la mën a tegu. te tamit nga leen ci soññ bu baax a baax. kooku xam jigéen xaw xam ni xaw dañ sàggan tuuti tuuti tuuti mm-hmm. li ñuy wax rek àdduna moom fàttali teloon mm-hmm. ba tax na dañuy waxtaan ak ñoom lu bari bari bari rek mm-hmm. xam ni lii suñu bëgg-bëgg la ñoom it dañ ciy def seen kenn kàttan te wax dëgg yàlla moom loolu lañu loolu la yàlla digal loolu la ñu yàlla digal ba tax na daal alhamdulilah di ci sant yàlla bu baax waaw waaw bëgg naa tamit ay leeral parce que damay dégg ñu ni Modou Lo ay nijaayam côté côté familial ñu ci bari ay ay ay chrétien lañ hmm. loolu am na woon amul. waaw waaw loolu am na di nuyu de passage sama mbokk yëpp ah waa Fandène sama yaay loolu wax naa ko waxaat ko sama yaay dafa tuub nii hmm. sama ndi yaay nii sama rakku yaay yu góor ak magam moom ay ay chrétien lañ hmm. di nuyu bu baax a baax a baax yaay nit yu baax ñu may taxawu tamit ci côté bu nekk sama cousin sama cousine yëpp ah ñoom it di leen souhaiter bon Pâques Mm-hmm. sama mbokku deret lañ. ok tax na loolu la sama yaay dafa tuub quoi. macha allah mm-hmm. ah, macha allah loolu loolu am na solo. Mm-hmm. koor gi damay des ak yow ak yow ci koor gi kañ ñu commencé woor nga am ñaataat. man ah yaa gën a woor. kooru mbër mbër. non pourtant nag mosuma def ay kooru mbër. Ah. xanaa kooru xale kay avant sax mbër. ay wóoru gàlle lu may wax xale bu dee jaar ah. Mm, wóoru gàlle. ah oui yàgg naa woor. mais tamit am na yenn jamono yi nga xam ne maa ngi rappelé. temps maa ngi liggéey soudeur métallique. ñu may yónni kolobaan may may dem di jënd ay fer baguette ci lañ doon def ay kaafu segu su lañ doon def ay grillage ay yooyu yëpp quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. ay xam nga boo teelee yooyu noonu dem saa Colobane nu mu xatee nu mu génn. bëggante yooyu. boobu ci kaw pont bi noonu da doon am ay maire yu bari jaay ndékki ay yor ay mbaar foofu noonu. daal saa yi. samay vaillé vie laay door romb nu mu ñëw rek duggee noonu. parce que ah. boo nekkee nii kersa bu gën a wér dama <laughs> jéggi te balaa maa dugg damay màcc sama tuñ yi ba ba mu tooy bu ngeen dugg gis mer nante boo xam ne kii. daa mel ne daa waroon waaye daa daa bëgg a daje. door ay vaillé vie di yëndu mbaar yi su gis mbaar bu wér rek man ni ci ca wax dugg. Mm. loolu sama mu rek ndàmpe bu baax am rek génnaat ku dina koor gi. dem garage te boo demee kër ga yaa dàq ndogu. yaa gën a sonn quoi yaa gën a xiif ba pare yaa dàq ndogu. ndax loolu moom li lu ñu waroon normal sax duñ ko ndogu. nag suñu tàggat. yàgg na mënu ma ko fàttali quoi. macha allah macha allah loolu am na solo Boucar Ndour. yaakaar naa koor gi mu ah. waaw côté diine ji rek laa bëggoon rek. waaw waaw parce que laaj sa waay. est-ce que nekkul maanaam dafa dem ba atteindre objectif am mm-hmm. maanaam dem ba nekk roi des arènes nga xam ne ah j'ai atteint mes objectifs nga repentir nag yu bëri nga ne nag. naa ko wàññi xaaral ma wàññi ko. certes. commencé ah, ah. ku fiy dund. Mhm. xanaa day def mooy tax nga atteindre sa objectif. Mhm. mais ku fiy dund lu ne. Mhm. yow mënoo atteindre gum. parce que li nga nekk ah. mais objectif bu mbër mooy nekk roi des arènes. roi mais alhamdulilah. balaa ma. yàlla def ma roi des arènes ñi ma xam loolu da ngay ma laaj ñi ma xam. Mhm. ñi ma xam dëgg may ànd ak ñoom. Mhm. wax dëgg yàlla xam nañ ma. Mhm. ak lu mën a am am na li nga xam ne duma ma ko caaxaan dama ko bëgg sama waxtaan ak sama sama réew yëpp loolu la. lii de.